Diallo. Mhm. Euh, responsable réew mi. Mhm. également dans partie euh, prenante de la coalition Benno Bokk Yaakaar la majorité présidentielle. Mhm. Euh, tey ñu gis sa nomination en tant que haut conseiller. ci liste bi nga xamante ne publié ko. li ñu naka la ko Lamine Diallo en tant que politique apprécier la nomination d' abord. waaw d' dañuy sant suñu borom donc rendre hommage au tout puissant euh, le fait que tey déjà. président de la république jaare ko ci président Idrissa Seck xalaat ñu euh, loolu dañ koy rafetlu ndaxte homme politique bu nekk bu sañoon euh, mu am un décret portant nomination bi nga xam ni ci turam lay nekk donc loolu dañ koy accueillir avec beaucoup de satisfaction mais aussi avec humilité ndax comme lu may wax rek euh, politique sacerdoce la ñëwuñu pour def ko sinikir maanaam nañ ci am dara ah bu ñu amul poste ñu yuux donc loolu euh, dama ko buggoon leeral xam ni daal c'est avec satisfaction mais c'est avec beaucoup de philosophie avec di d'humilité du sant bu baax le président de la République moom mi nga xam ni euh, xalaat na ni euh, en tant que qu'ancien maire ah nekk dans une commune électoralement potentiel mu xalaat Lamine jàll donc dañ ko ci sant du ko ci gërëm. alors euh, très ci beneen wàll bi euh, lu ci mel ni Touba Mbacké ak yeneen i gox ñu ngi baax ba ci Thiès euh, ni tey parti réew mi nomination yi nga xam ne am na benn rek la am muy Thiès te muy yow ñenn ñi nangu ñeneen ñi nangu moom coow ñu commencé bari li ni mel monsieur le noo koy jàngatee. voilà d'abord damay ñëw ci Thiès Thiès dafa naa nii Euh, euh, coow amul fi du waa réew mi du waa Bennoo Bokk Yaakaar parce que ñi nga xam ni ñoom la ñu gis ñu organiser point de presse ne ñooy waa Bennoo Bokk Yaakaar Thiès noor man jàpp naa ni du ñu waa Bennoo Bokk Yaakaar dafa naa ni c'est la coalition bunt bi ñoom ñoo doon def point de presse mais parce que Thiès Nord la nekk xam nañu ñan ñooy responsable Bennoo Bokk Yaakaar biir cees noor lu tax ma ni ñee mënuma leen wax ni ay responsable benn bokk yaakaar la ndax dama jàpp ni boo nekkee ci parti walla ci coalition nga ni da nga da nga da nga da nga da nga des responsables disciplinés nga xam ni bu sa leader joxoñ euh, monsieur le maire Lamine Diallo ginnaaw bi nga euh, li nga xam ne mooy sa nomination en tant que haut conseiller euh, ginnaaw bi la République defee ñu gis ni 150 hauts conseillers yi am ci biir li nga xam ne mooy liste bu majorité présidentielle waa réew mi ñu ngi kaas ni ñoom gis ñu ci benn benn bi ci am yow yaa ko nekk fii ci biir Thiès waaye tamit gis nañ tamit wax benn bokk yaakaar wala bokk une frange ko ni ñu koy waxee ñu toog ne ñoom it dañu am jafe-jafe ndaxte nomination yi boobu léegi euh, boppam ci ay nomination waaw d'abord damay leerlu que ni ñi nga xam ni ñoom ñoo organiser point de presse du ñaxtu si turu Benno Bokk Yaakaar damay wax léegi ñooñu mënuma leen tuddee ay responsable Benno Bokk Yaakaar ndaxte nag Thiès Nord la ñu nekk gis nañu daal ni élection yi nga xam ni yu weesu yi sax ñoom ñu ngi ñoo nekkoon la coalition bunt bi ñoom ñoo nekk la coalition bunt bi te bu ñu fàttalikoo tuuti en 2014 ñoom ba Benno Bokk Yaakaar jaaree ne ñoom dañoo demoon ci entente bi nga xam ni le feu feu Mamadou Dieng moom la yore woon ñoom moom la ñu àndaloon donc man dama jàpp ni boo nekkee ci coalition walla ci parti sa leader su joxee ay ins ay directives directives yooyu da nga ko war a jëfee mais mun naa jàpp ni ñooñu mosuñoo jëfe lu président de la bi république joxoñ mosuñoo jëfe lu direction parti euh, coalition Benno Bokk Yaakaar tëral kon ñooñu man mënuma leen jàppee ni sax ci coalition Benno Bokk Yaakaar lañ bokk ndaxte élection euh, wax naa ko 2014 ñu ngi woon entente ànd ak Mamadou Dieng feu Mamadou Dieng 2022 ñu ngi woon ci coalition bunt bi même législative bi gëmuma ni sax woteel nañu Benno Bokk Yaakaar xam nga lu tax parce que si mille vingt 2022 bi ñoom ba ñu créé dem seen coalition Benno Bokk Yaakaar te seen thème de campagne nekk Lamine Diallo ak bopp fas bi ne bu buñ ko wotee nañu wote seen bulletin ñoom ñun waaye Yewwi ñu ngi ko ñu ngi ñu rawee dans les dans les dans les 29 bureaux de vote de Madina Fall à peu près cinq voix d'écart ñoom nee nañu. si de 2022 bi amoon nañu 1700 voix kon ça veut dire que bu ñu fekkoon dañoo ñëw 2000 si législative yi kon dañoo waroon écart boobu ñu amoon diggante ñoo yi dañ ko waroon dañ ko waroon absorbé mais yeew yi dañoo rawaat plus de 1000 voix si 29 bureaux de vote yu nekk biir Madina Fall kon amuñu apport bu ñuy indi c'est un groupe de personnes yi nga xam ni lu leen yitteel maanaam dañoo bëgg def politique ay menaces ak ay chantage te loolu dafa xew te leneen lu mu war a leeral mooy parce que ab kooku dama koy jàppe nii suñu waajur la suñu yaay la mooy maire Awa Doucouré damay wax fa nañ ko sauver parce que un groupe de jeunes ñoo koy jël en otage di ko def loolu nga xam ni waru ko def parce que mag la te ñun aussi xam nañu aussi diggante bi mu am ah ak la famille de Macky Sall ak teraanga yu nga xam ni am na ko fa donc ñëpp ñoo war a xarab ba donc loolu aussi dama ko buggoon eggal parce que mënuma comprendre cette méchanceté gratuite xam nga tubaab da lay wax mun nga mun nga soxor mun nga bon bu fekkee ni dafa am lu ko sabab mais ñoom dafa mel ni euh, ay nit lañu nga xam ni dañuy soxor naturellement maanaam tey dafa mel ni yàlla da leen mooñaale ak soxor te loolu nag du ñu wax lu dul ni ñaanal leen yàlla dimbale leen donc loolu ñu xamee ko noonu que ni c'est pas Benno de Thiès noor ñoom ñoo def point de presse mais c'est la coalition bunt bi nga xam ni c'est un groupe de responsable yi nga xam dañuy réclamer wu toujours ne Benno Bokk Yaakaar lañu def te mu mësuñoo jëfe directive wu président Macky Sall directive wu orientation wu euh, Benno Bokk Yaakaar loolu laa bëggoon wax si loolu beneen bi mooy comme nu nga ko waxee Touba effectivement yëg nañu ni Mbàkke ngi ñaxtu ndax ñoom jàpp nañu ni bu ñu xoolee ci élection présidentielle yu romb Mbàkke suñu parti la réew mi Mbàkke moo rawoon département Thiès ci wàll électorat moo nekkoon le premier département di parti réew kon bu ñu ñëwee ci coalition benn Bokk Yaakaar depuis boobu ba léegi amuñu lenn ba ñu duggee ba ba ñu ñun waa réew mi ba ñu duggee ci coalition bi donc amuñu amuñu député amuñu au conseil amuñu ministre. Thiès mun Idrissa Thiès la dëkk mu ngi yore ses le ministre Diatara Thiès la dëkk donc tey bu ñu ñëwee ñoom ñu ni Lamine jàll Thiès la dëkk effectivement mun nañu comprendre seen ñaxtu et c'est c'est c'est à juste titre loolu mooy wax moo tax ma ni président Idrissa bu fekkee ni coow li. Euh, li koy fay ak li nga xam ni moom moo xët-xëtu xol yi lu koy fay mooy ma tegaat poste bi ma je suis pour delloo poste bi pour que waa Mbacké mun a comprendre que ni ñoom itam Idrissa dafa am considération bu mag bu mu teg bu mu leen jox pour jàmm dellu si waat dans nos rangs parce que nag euh, nañ comprendre que ni tey situation bu inconfortable le parti réew mi la nekk te loolu c'est des sacrifices yu nga xam ni le leader euh, le président Idrissa Seck moom la def ndaxte ñun ñoo nekkoon la deuxième force politique de ce pays là mais intérêt réew mi bu jógee ñun dañuy fàtte suñu bopp te Idrissa dafa fàtte boppam pour la stabilité du pays loolu ñàkk nañ lu bëri ndaxte ñun xamoon nañu ni biir ci la ville de Thiès c'est une ville contestataire. biilu bañkat dañuy bañ donc musuñoo ànd ak nguur. boo ko xoolee depuis jamonoy Abdou Diouf Abdou Diouf 88 ba muy wax la jeunesse malsaine Thiès la ko waxee Ablaye Wade ba mu ñëwee musul gañe Thiès ñun xam nañu loolu. yëpp mais musu koo gañee mais ñun dañoo nangu ñun ñoo doon incarner l' opposition forte. c' est euh, waaw moo tax ma ni même ñu doon def point de presse xamuñu. ndaxte benn la waa réew mi am si téeméer ak juróom fukk au conseil benn benn boobu waa réew mi lañ ko jagal doom ñoom kañ xanaa nag boo yoree téeméer ak juróom fukk nga jox sa allié benn élégance voudrait que ñooñu nga xam ni ñooy maanaam waa Bennoo Bokk Yaakaar sax dañoo waroon wax ne ah dëgg-dëgg lii tuuti na si waa réew mi benn boobu c'est le quota de réew mi kon bu benn boobu ñoom waruñu si sax waa réew mi moo tax ma ni man ñële épiphénomène la mais ñi nga xam ni sax man ñoo ma gën a intéressé mooy tey malaise bi nga xam ni indi na ko à Touba te mu nekk un fief bi nga xam ni tey ci élection présidentielle yi c'était le fief c'était c'était un fief de Idriss sec donc moo tax man euh, bu may def politique comme nu ko président waxee ñëw ci Macky Sall du ay post moo tax mu ñëw ci président Macky xam nga ni Idriss Seck du ay post moo tax mu ñëw lu tax mu ñëw ay enjeux nationaux la ay enjeux internationaux la et que c'est pour la stabilité de ce pays là te loolu dañoo jaral lu nekk même s'il faut mu jaral suñu carrière politique loolu dañ koy jaral. Euh, euh, te ñu bëri nee nañu ay mbiru Macky Sall ci boppam ñoom ñoo xeex pour que ngeen ñàkk Thiès. waaw non xam nga loolu. loolu tey moom moom laay wax dañoo maanaam muy waa Bennoo waa réew mi tey. ñun ñoo def lu tax ñu ñàkk Thiès mais aussi comme lu ma wax aussi Thiessois yi dañuy comprendre seen nature Thiessois yi ay vote contestataire lañ def peut-être que on n'a pas pris autant de temps pour expliquer leen parce que ñu ñu gagné liggéeyuñu fi lu war a tax ñu gagné Thiès.